al ibadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam wasallim mbokk julli ñu ngi sant sunu borom moo naa tabaraka wa taala julli ci sayyiduna Muhammad te di leen nuyu te di leen balwaq gannaaw loolu ngi dellu di fàttali sunu bopp te di leen fàttali nu bokk ñépp di bañ a fàtte ndigali sunu borom yi ak terrain bi ci noonu gannaaw loolu yi ñu ngi leen di ndokkeel ci weeru mag yi di weeru rajab ñuy sant borom bi bi mu nu mayee nu fekke ko mu bokk ci weer yi ñu warmaal yi kon nañu ci gën a farlu ci tuubal sunu borom yokk ci sunuy jaamu yàlla farlu ci ci ay ñaan ndax tànn sunu borom ngëneel rekk la doy na sëkk ngëneel ci weer wi ñu ne weer wi ci la julli juróom wàcc jëm si ci nun jaam yi te ku ne rajab sa xel dem ci saxbaan te saxbaan ramadaan moo ci tege kon yokk ci say jaamu yàlla yow rek yiw rek la lay jural te xamuñu suy dellu siwaat fu mu nuy fekk te jullit moomul waaj mu bari waaj mu bari ci càggante la bokk te jàkk te càggante du mbirum jullit weer la woo xam ne même ci jamonoy jaahiliya dañ ko daan wormaal mu bokk ci weer yi nga xam ne kon kenn waru cee yee fitna te ñun ñëpp xam nañu ne fitna mi ngi yoot sunum réew kon ñëpp war a jóg taxaw temm ba fitna bañ fee am benn place bu kenn xeeb boppam te ku nekk taxawee na kàttanam toll nañ ci ñépp taxaw bu ñu ko féetale kenn walla ñenn ñu ñu defee ne ñoo ca war a taxaw wala ñoo ca war a wax ndax bu ñu seetaanee ba fitna juddu fi ñépp a koy bokk yëpp kilifa gu baax noonu nee na jàmm fu mu amul lu waaye doon def di nga ko bàyyi ba jàmm dellu siwaat nga door caa dellu te ku ko wedd xoolal ci réew yi jàmm amul la ñuy daj soxlawuñu dara dara lu dul jàmm dellu si waat ci seenum réew xam nañ ne nag responsabilité yi yemuñu ndax ku ku yilife ak ku ñu yilif mënuñoo yem taxawaay koo xam ne fu fukki nit faatoo ci réew ñu jàll ci lu néew néew ñett wala ñeent wala juróom yow mënoo yem responsabilité ak ñi ci des kon nag ku am lii cim réew fu fiit na jóge amatoo sañ-sañu noppi waaye réew mi nag dafa am nu mu nu mu bindoo dañoo gën a dañoo gën a farlu ci taxawu pénc yi ka ci taxaw diine ji te loolu njuumte lu rëy la ni ñu ñage pénc yi ñage wuñu diine ji looloo tax réew mi ay pénc pénc la yu bari te pénc mu ci nekk borom pénc ma la waat péncam di diglu ma neen borom pénc mu wax ñu dul ñu dëkk seen pénc amuñu soxla ci say wax looloo tax ñu waree wax ak waa réew mi borom pénc yépp ñoo war a wax bu ñu ko jiiñ kenn bu ñu ko jiiñ mel na borom pénc ne moo war a wax ña ca des nopp ndax léeg-léeg su ñuy séddale njariñ ñu dégg borom pénc mu ñu joxul wala ñu jox néew muy laaj lu tax kon su la neen xewee na ñëpp wax doon na gën a yomb nag su fekkoon ne borom pénc yi léeg-léeg ñu daje ci barab waxtaane lu kenn du dégg ñu waxtaane fa tolluwaayu réew mi ak diine ji kon yii ñuy tiit mën a bañ bokk na ci njuumte yi nga xam ne sàmmum pénc sàggane sàmm sàmm diine dina ko jur diine digle na soo toppee ci yilimaan ngeen di julli su ca naree yokkub rakka bu ca bokkul ngir njuumte nga sàbbal xamal ko ne ko yaa ngi juum waaye su dee boromum pénc su juumee duñu ko sàbbal dañu koy layal di wane ne juumul te moo ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi ne kuy sab say tànk ci kaw suuf dafay ngay juum la waral moom ci boppam su masaara wax ak saaba yi ridwanullahi alayhim dañ koy laaj wax ji fu mu jóge wax yu la wala sa xalaati bopp la su dee wax yu moom dégg te topp lay laaj waaye su dee ay xalaatam ñoom itam ñu joxe seeni xalaat ndax wax yu mooy diine ji su dee ay xalaat nag pénc mee ko moom te jamono waxtu wu nekk dafay indiw nitam nitu démb mën nañoo wuteeg nitu tey waaye bëgg lu baax ak sàkk lu baax amul jamono jamono ju nekk lañ ko war di sàkku bariwaana ku nekk ci penc di ca yëkkati kàddoom te du kilifa te du kilifa ga ñu defee na baat lay wut wala sañ-sañ te fekk na lu wodd penc ma mooy yitteem ndax ñamu bokk ñamu bokkalut penc lay bañ ñu gis rafalewu pencam ndax su penc mi taaroo wodd koddaay lu rafet mën nañ koo jiiñ borom penc waaye su rafle ñëpp am kes te lu ñëpp bokk te lu ko séddoo ku nekk waggar moo la ca war kon nag fi réew mi toll fii mu nga xam ne ñëpp a ci fitna yow fi ku fi am kàddu gu ñuy dégg ñëpp a ngi lay jublu ndax fitna li ko yee nelawalu ko te ki jiite réew mi genn kàddoom képp mën naa indi jàmm ci réew mi kon nag wax ak moom jot na sëkk ci képp ku muy jublu say wax yilif àdduna ak li ci biiram nag jëlul benn bakkan bu faatu rawatina di jullit buur nag bari na lu muy dugg ña ko wër ñoo ko ci dugal waaye yow buur bàyyil xel te fàttaliku bu baax démb ba nga soxlaa lii nga yore tey te mënoo ci woon a jot ña jógoon jàppale la ba nga jot ci ñooñu ñooy waa réew mi kon na nga leen diglu tey ndax réew mi seral na la teraanga joo xam ne mënoo koo fay te réew mi mooy waa réew mi da nga fàttaliku ba ñu la bëggee fitnaal démb ñépp jógoon jàppale la dox sa digganteeg ña la naroon a fitnaal kon tey bu nangu fitna di wàcc ci kaw ña doxoon sa digganteeg fitna yi démb kon ña la doon jàppale démb suñu wëlbati ko bu ko jàmmaarloog yow tey seetaatal sa bopp te seetaat bu baax ñi la wër fàttaliku démb xalaat suba bokk na ci liy dimbali askor te bu nangu ku la yàqal sa nett lib ëllëg ngir njariñal boppam te lu mu mën a doon mujj gaa ci ëpp solo te lépp lu ñu lay laaj ëllëg xamal leen xamal ni nga koy sàmme tey ñu nga fi wutukat ñi ngi waxtaan ni ñu yore woon réew mi ak ni ñu ko ñàkk bul nangu ñu gën daa rafet la way adduna doy fi nekk waaye lu doy amu fi ndax adduna ci boppam doyul bàyyil xene bàyyil xel ci ne lépp du jóge ci loxo jaar ci sa jaar ci say loxo di dem ci yeneen loxo jaay ci ab sañ-sañ du nite te nga gën ponk te gën a diglu ñu lay wax dëgg te di ca seet yàlla seen borom ndax ñooñu ñooy ñu bëgg réew mi ñi ci des seen njariñ lañoo ànd ak yow dañu lay ba ba ba nga dugg ci biir kàmb ñu wëlbatiku te loolu yaa ngi koy xamee ci ñi la wër tey ñu ci bari ñooy ña waroon ki nga wuutu démb te seen ki nga xam démb doo toog fi nga toog tey bàyyi ci xel bu baax bàyyi xel bu baax ci ñiy yëkkati seen kàddu ci réew mi ñëpp bokkuñu yem bi ngay jot ci réew mi amoon nga duggiin bu rafet liggéey nga fi itam du ñëpp gis kenn mënu koo wet kon bul nangu ku xajamal ku xajamal sa liggéey buur xeex jigu ko ndax su gañee du bett kenn te suñu ko gañee mu gàcc rawatina sa jabootu bopp ku la war a wet bul doyee di fi kanamam bam di la yeb jamono yii nga toll nag ku lay wax te bañ laa jay mooy sa soppe bul nangu ku lay xiirtal mukk ci loo xam ne du la ci dimbali te su fitna yewwoo ci réew mi di nga ci wéet ñooñu la wër naan la dañ laa yeb su fitna yewwoo ci réew mi soo gisoo soo geesoo doo ci gis kenn te fitna kenn du ko xeeb buur yu bari xeeb fitnaa leen tàggaleeg seen nguur nguur borom bi ne damaa koy jox ku ma soob moo tax bi nga ci jot mu yomboon sunu borom moo na ko joxoon waaye nee na maa koy xañ ku ma soob te su boobaa loo ca ngoy ngoy du la ko tey ñàkk ndax daf koy nocci la wax nee na damay nocci nguur su ma koy nocci ci ki ma ko joxoon su jeexagul nag su fekkee nguur gi jeexagul nag kenn mënu koo xañ waaye lu daawul xew su xewee bul fénati xalaat ci bu baax te xalaate ci ak sago te nga bàyyi xel bu baax ci ñi la wër du yow yaa leen yitteel fi nga toog moo leen yitteel ku la fi wuutu soo ëllëgee ñu def ko nu raw nañu loo def bàyyi ci xel bu baax xel muy jariñe nag mën naa jóge fu ne bul xeeb kenn bul xeeb benn xel yi itam yaxfirullahu li wa lakum